saaga la foog nga wax li ñu bëgg muy dictature de la pensée unique man ma tuddee leen la Gestapo du net parce que noonu la ñu mel donc gis nga loolu pour man oui, mais de part et d'autre ça n'a aucune incidence parce que nous hommes politique est-ce que dañu am permis de tuer est-ce que de notre propre turpitude waruñu ci répondre parce qu'on fait de la politique Je ne le pense pas. Nous sommes citoyens justiciables comme tout autre citoyen. Est-ce que nag que tout problème qu'on a on le dit à la politique est-ce que ça c'est c'est c'est c'est censé est-ce que ça moo war a am que chaque homme politique qui a un problème avec la justice que ça soit avec une personne parce que il n'y avait pas de problème d'État entre lui et l'État il y avait un problème entre lui et une citoyenne sénégalaise, puis entre lui et un citoyen mambéyan. Il n'y avait pas de problème d'État avec lui. Et pourtant, on a amené la politique à en faire un problème. Bon, il n'y a que une façon de faire. Euh, li Mame Fatou doon wax dëgg la mais la Gestapo di net moo tax ba kii da ngay toog seen kër yow sa frère wala sa sœur vous ne pouvez pas vous entendre parce que ku nekk dafa far ba faram la gis gisatul dara. Mhm. day fàttee sax les liens du sang. yi ngeen am. mais c'est la démocratie aussi c'est la démocratie. ah c'est la contradiction. c'est la non c'est la contradiction de tout temps ça a été comme ça. de tout régime du parti unique c'était comme ça. non non non non même dans le parti unique. foofu naa fi ñëw mais dama la wax ni rek la démocratie ne rime ak ñàkk worma ak sa mag wala sa sœur wala sa papa wala sa nijaay on a vu même un jeune parce qu'il est euh, son père lui a dit quelque chose ba poignardé ko à cause de son leader mais c'est quoi cette histoire là mais la politique elle est pour rassembler mm-hmm. patas moom a gënal ñaar bi taxut ñu yóbbu ci kenn police mm-hmm. diw laa faral diw laa et pourtant yàgg na fi ci kër yi ñi nekk PDS ñi nekk PS ñi nekk LD ñi nekk kii te ci bool de riz bi. dañuy waxtaan. ba léegi am na y a su demee ba nga xam ni da ngay dem ba aime sa frère parce que il est de la majorité wala sa papa il est de la majorité nga en ko ku far ak man moo baax ku farul ak man baaxul bu ñu bi ñu dugalee loolu ci politique ci la politique yàqu parce que dama ne gis nga politique ña ko doon def dañu jaar ñi ñi ci jaar école du partie du ñu toog di du ñu wax lu ñu xamul. ba ñi ñi nga xam ni ñu nekkoon ci booru teen bi te amuñu baat ñëwee ci la politique yàq ci la ñuy saaga nit ñi saaga kilifa diine saaga kilifa aada ormaalatuñu kenn sa mag sa papa sa yaay faale woo lu la neex ngay def ma ciy wax ni gis nga loolu bii moom mu ngi door a am violence politique yàgg na am Sénégal depuis 1957 C'est vrai qu'en 1963, il y a eu 40 morts, mais on n'a jamais atteint ce summum. bi nga xam ni Sénégal war ma amatu fi. mais imagine toi boobu boobu c'était le boobu c'était le parti unique. même même rek c'était le parti unique. boobu c'était le parti unique. même même après ah, l'espace ah. politique a été ah. pacifié. jusqu'en 88 puis 89. il y a eu des puis 94. mais après ya y a eu des séquences mais aucune séquence n'est mortelle que la séquence de 2021 mais da nga tëb séquence 67 dégg nga mais 2021 67 da nga ko tëb mort boo defee boo boo xoolee séquence yëpp à part les 40 hmm. morts de 63 il y a mais boobu boobu moo gënoon graw moo mhm. bu ñuy wax ça a existé quand même dafa oui ça a existé mais bii moo gën a graw boobu boobu sax ça fait plus de 40 morts xam nga man li may wax euh, leader bi ngeen di wax mu ngi doog a am problème avec l'État quand il y a eu les huit chefs d'inculpation parce que ça devient de la raison d'État un État dafa am foo xam ni il impose sa raison quand le pays di dem ba nga xam ni war na mu ngi au bord de précipice la raison d'État va prévaloir sur toute considération justice ou tout il y aura la raison d'État la raison d'État va s'appliquer. Mmh. Quel que soit le problème. Et la justice. Quel que soit le problème, la raison d'État va s'appliquer. Très bien. Sur ces dossiers de justice, nga ci am yow mi bëgg nekk par euh, exemple. Euh, la justice. Euh, comme bras armé déjà. Euh, par rapport waaw xam nga tout à l'heure j'en avais parlé quand on parlait de la troisième candidature de Macky Sall. Mm. j'ai dit que il est rentré dans l'histoire de façon positive comme de façon négative et façon négative bi nag peut-être c'est pas lui directement mais la gestion du dossier Ousmane Sonko bon reste ça laisse perplexe mm-hmm. perplexe mmh. parce que quelqu'un qu'on accuse après finalement qu'on innocente pour dire que corruption de la jeunesse je pense que su ñu def corruption de la jeunesse Sénégal ñu bëri dañ leen tëj prison. Mm. su ko appliqué même si c'est un délit je ah, pense que c'est alors, pas appliqué parce que aujourd'hui euh, il je pense que qui est accusé euh, de meurtre d'accord mais je pense que tey su ñu ko doon appliqué toujours euh, ñu bëri d'autant plus que y problème des fichiers de parrainage. mu indi beneen problème parce que mu gën a firndeel ne justice bi xaw na sooxe parce que quand on dit que il doit avoir une fiche de parrainage nga dem nangu ñu la jox donc doy na wax mais mon mon problème c'est vraiment euh, la violence parce que man on peut pas justifier la la violence kenn mënu ko justifier c'est du n'importe quoi que parce que da ngaa mer tu bien des autres am benn sens d'autant plus que lu ñu yàq si ni alal la ñoo ko déjà nous sommes un pays pauvre Sénégal à peu près dix milliards de dollars la budget États-Unis seen armée huit cent quatre-vingt-six milliards de dollars la c'est presque quatre-vingt-huit fois le budget du Sénégal ñoom lu ñu jox armée donc pour dire comment pour am dara nga yàq réew foo ko teg c'est du n'importe quoi donc ça on condamne ça kenn mënul wax ba loolu duñ ko condamner c'est du n'importe quoi rien waru justifier la violence mën a kaas mën a mer mais de façon boo xam ne doo yàq te kaas de mer bi lu mu est-ce que ça a résolu le problème kaas nañu mer nu yàq nañu à la fin même les personnes ñu doon yàq ñoom ñoo am problème parce que tey xale yi ko université di yàq tey ñoom ñoo bëgg a jàngiwaat université te man gëm naa ne xale yi ñoom suñu bëggul woon université kenn du ko kenn du ko donc faut dire la vérité c'est pas parce que je suis de l'opposition que je vais dire euh, ce que les gens veulent entendre non day wax luy dëgg ci mm-hmm. il y a eu du n'importe quoi dans cette politique les gens ont une violence boo xam non justifiée à cause de la politique le dossier a été mal géré mm-hmm. limite on sait que la justice

où étaient leurs parents c'est du n'importe dëgg la justice séparation du pouvoir tout ça c'est du n'importe quoi parce que loo mënut séparer les pouvoirs il y a la corruption du changer mm-hmm. tant qu'il y a la corruption du changer nga jël une personne indépendante mais si la personne là elle est corrompue su la euh, kañ ñoo ne que soo euh, jëlee décision bi moo jox le cœur wala jox un milliard la personne va prendre cette décision donc faut travailler sur les valeurs faut prendre des gens de valeur am na ñoo xam ne ils ont ils parce que am na ñoo ko joxee dañuy bañ def luy yoon donc faut travailler sur ça ñu yaraat suñu doom yi parce que c'est pas normal nga am xale bu ndaw doo xam mu nekk jusqu'à une heure du matin donc man foofu laa waxee vraiment le dossier Sonko ma je pense que foofu tache d'encre la si son bilan. très bien mais malheureusement nag euh, foo noonu toll tey. alors Ndeye Fatou peut-être sur euh, euh, le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bu ñu bu ñu war a euh, euh, taxawalaat le 4 janvier. Mm mais aussi sur les arrestations on en parle une bonne fois parce que je pense que temps bi léegi mu jeex aussi. Mhm. waaw ñaari dossier yooyu de ba léegi ñu ngi ci actualité bi parce que seen ay ramifications ci la ñuy nekk ba léegi nii. Hmm. mais nee ne ñaari dossier yooyu lan la ñu coûté des vies hmm. humaines. dañu daanu ci dossier yooyu noonu ne ne Aïcha 2021 ba 2023 pour affaire justice euh, Sénégal dund na loo xam ne dañ koy nettali ci taarixu Sénégal parce que non seulement ay nit ñàkk nañu seen bakkan mais dëkk bi euh, dund na comme si dañu nekk ci état d'urgence parce que il arrivait des journées wu doo gis kenn ci biti boo gisee xëy na mbooloo buy sànnante ak ay force de de l'ordre ngay gis wala ay grenade lacrymogène ci biir dëkk bi on pensait que <laughs> le pays naroon na finir à feu et à sang ñu tete peut-être en 2021 l'intervention de nos religieux et en 2023 peut-être accalmie boo xam ne c'est après que nos force vraiment de défense et de sécurité wane nañ ko ci njàmbaar wane ko aussi ci ténacité ci théâtre des opérations mmh. il faut quand même saluer leur professionalisme mu nen ne parce que suñu amoon yenn force de l'ordre yi yenn yi nga xam ne peut-être in il tire sur tout ce qui bouge konoon daan nañu doon nañu am grabuge ci dëkk bi au Sénégal te grabuge boobu buñ pare woon bay def inventaire li ko fi indi mais ku nekk soo paree di nga di nga mere sa bopp lan moo ko fi indi dossier de justice bu ñu fi teg une femme boo xam ne accusée na de viol un leader politique mu accuser ko de viol avant ñoo dem ci ay procès wala ñuy dem sax ci mbiru justice dëkk bi tàkk dëkk bi tàkk parce que tamit nit ki ñu woo justice nga woo sa mbooloo ne ñëpp na ngeen ma bunge mhm. xëy na bés bu débordé yow am nga ci part de responsabilité parce que yaa woote ne ne boo yoree euh, kii nii mbooloo aussi mu doon mbooloo boo xam ne dañu ak dañu nekk ci sa cause